allahuma amin yàlla fekk lañ ci jàmm xaaj mbàkkam jotaay bi tëddee jërëjëf oustaz niñ ko baaxoo tërale lañ koy jéem a tëraleeti insha allahu taala daañu ñëw léegi ci xibaari daara ji maanaam xew-xew yi nga xam ne moo gën a ràññiku ci ay bis gii ñu nekk ak gi nga ne moom la ñu génn wéyal jotaay bi ba minuit jot ñu ànd ak mbokk yi ci xibaar yi ci biir réew mi ak bitim réew français ak wolof dellu si ànd ak auditeurs yi auditrices yi ci téléphone bi ñu nekk ci biir réew mi mën a woote ci 88 628 98 98 ñu nekk bitim 241 22 33 bu ñu demee ba 1 heure 30 jot ñu jeexal ko ci xaaj boobu dégtalaat leen tafsiru quranul karim bi ñu amoon ay bis gi ñu génn buñ ci noppee dégtal leen alkitab ne noonu ànd ak ñoom ci jotaay bi ba 5 jot ñu déglu alquranul karim 5 heures ñu ànd déglu almisbah 6 heures ñu ànd déglu waxtaanu fajar yi tey di alxames fajarug àjjuma lay doon waxtaanu fajar wi day baaxoo amub tem tem bi mooy doon ilallahi ibadallah maanaam jëm ci boromam subhaanahu wa taala oustaz noonu la jotaay bi fas yéenee tëddee al misbah kon mooy 5h30 incha allah ajjuma ak samedi dimanche wax na dëgg dañu am ay thèmes ila lay ibadallah rihlatun ila daar al axira ak min kunuusi bu dimanche jaajëfal xaaj mbàkki si la tabarakallaahu ñaanal ko tawfiq sutura ak ci def dara kulle saaxiyatin ma maana bu ngeen xoolee seen montre vingt-deux heures ma jël ba teg juróom fukki simili ak juróom xaaj mbàkke salaamun waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu tafaddal maskuran fa jazaakallaahu xayran jërëjëf oustaz jërëjëf jazaakallaahu xayran ci nuyoo yu am solo yooyu nga dem biir réew mi ak bitim réew nuyu ñi nga jotoon nuyu ñëpp ñëpp jéggulu ñi nuyoo yi ak siwut ci ñoom mhm. di wax ne ñi bég ci jotaay bi ñëpp buñ leen bëggee nuyu bët dana set duñ ko matal lay ndeysaan lu wér nga wax xanaa daal di tàmbalee jotaay bi rek ci euh, wax inna lillahi wa inna ilayhi rajihoon mhm. jaale la sa wayjur woowu nga xamante ne suñu wayjur woowu fi bàyyi ko ci altine mhm. di ci guddi gi di Baye Mbaye Sall balañ cee gën a sori sax oustaz euh, am nay jamono ñu la doon waxtaane sa anniversaire ak yu demee noonu fexe woon naa ba am kàddoom ñu dégtal auditeurs yi tuuti ñu xam tuuti ci ci sa wayjur woowu di Baye Mbaye Sall ñu door cee ñëw. moo ci xamee daal. waaw. moo topp ci sama taaw. moo topp ci sa taaw. waaw. Mm-hmm. sama xarit bi ma ko tuddee itam. Mm-hmm. mu ne mille cent wet. Mm-hmm. Aliou la tudd. bi nga xamee ne dem na ba war a mën a dellu jàng dama ko booleeg rakkam jooju bàll. yóbbu leen ci benn dëkk. ci wetu mbar. ku ñu alaaji màggat jéey moo ko fa doon jàngal ñoo leen yoroon bañ fay wàccee na ñu jógee fa ñëw ñu ñëwee ma yebal ko Louga mu dem kër Sëñ Abbas Sall ba fa yeggee mu ne ko foo dëkk mu ne ko càlle mu ne ko kan moo tey sa ba sa maam mu ne Sëñ Balla Sall mu ne ko ah, foofa day ko fa dëkk booy jàng sooy da nga mën a jàng daal di ko fay jël mu am fa ñaari at yu war a tegal tuuti ba fa jógee ma boole ko Serigne Ndiaga Ndiaye Touba Ndiaye ma nga si wetu Thiamène. Mm-hmm. mu am fa ay classe mm-hmm. juróomi mm-hmm. mu dem moo doon directeur ba. mu am fa ma dem fekk ko fa mu xaw a am ña amatu solo daal daanaka presque foofu. ma ne ko da nga ñëw Dakar boo ñëwee Dakar bu soobee yàlla da am da nga feeñ. ndax xam naa nga wax ko léegi nag ma jàll ñëw mu topp ma ñëw ba mu dikkee sama rakk ji nekk na léegi moom dikkee mu wàcc sa euh, dañoo bëggoon nga wax ñu tuuti euh, ndaxte léeg-léeg nit euh, bu nekkee dara amu tur dañuy wax ne ndeyam moo ko liggéey wala ñu ne ndeyam dafa sonnoon ci kër baayam mm. tey jii yaayam nekku fi dem na dëkkaale jeeg boroomam yow yaa fi nekk yal na nga fi yàgg ñu bëggoon nga wax ñu lenn ci ay jikkoom moom yaayam jooju ak nekk gi nga nekkoon ak moom ba lii sosoo ci tey. yaayam nag Hmm. ci la ma la ci mën a wax. waaw. moom suñuy bàyyi bokk ndey ak bàyyi. Hmm. sama rakk la. ndeysaan. turandoom mii ci boppam. Hmm. ci kanamam la ñoom ñëpp ma li may wax. mooy jëkk wàcc ca kër ga. waar kala sant nañ ko bu baax itam. ndeysaan. daal def na fa liggéey lu ne def na baax lu baax lu ne itam. keroog ba nga xamee ne génn àdduna it. dafa dajante bésu julli korite dañoo dañoo julli korite gi ba noppi yóbbu ko. xam nga yooyu yëpp ay ay mandarga la. waaw. waaw. Mm-hmm. moom itam daanaka doom ju mu am. Mm. li ci ëpp. Mm. moom moo koy yënte. ndeysaan. dana fekk yàlla yi tam nay liggéey dana am jot pour bala ma am dara lu ma mën a yënte waaye bala maa dikk daal. Mm-hmm. fekk mu man ka def naa nangam ak nangam pare ma ne ko waaw baax na. ndeysaan. kër ga mu jël lu mu cay def day kii ba noppi rek ma ñëw ma ne def naa nangam. ndeysaan. ma ne ko waaw loolu baax na. Mm-hmm. loola nag moom. te nag continuer moom ba ni ko yàlla moom. Mhm. wax dëgg yàlla loolu rek laa gis ci moom. moom moomu itam. Mhm. sant naa ko bu baax. waaw. ndax keroog ba nga xamee ne yaayam dafa neraw. Mhm. ma ne ko ah yëf mu ngi bëgg a doy waar mu ne waaw nag léegi daal gannaaw ñaar la woon léegi kenn la. te kenn ki yàlla na fi yàgg. loolu soxla rek booy bëgg a wax ko. tem yàgg ma ne ko waaw baax na yàlla baax na. ndeysaan bu ma soxlaa fii mu nekk ci jamono yi nga xam ne sax war yi dafa am bu ma ne ko alors mu ne waaw rek ma ne ko yónnee ma nangam. Mhm. bu walbati koo gis message bi. ndeysaan waaw. tubarkàlla oh. jërëjëf kon Baye Mbaye xam naa tey nag mooy anniversaire am eh, ñu bàyyi la rek nga ñaanal ko eh, daal di koy tëjee li nga xam ne mooy sa mooy sa mooy sa participation ci anniversaire bi yow sab cadeau nga def ko ñaan ñu bàyyi la nga ñaanal ko ñaanalaale soppeem yëpp.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 اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلص وخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا دين إلا صراط المستقيم وعلى آله أصحابه وقدر وسلم وسلم وسلم وسلم يا جحفل الجحيم يا رب نصر ولا تهاجر يا رب نصر ولا تهاجر يا رب نصر ولا تهاجر yàlla yàlla yàggal yëpp yëpp yëpp yëpp te jéggal leen yëpp yëpp dolli seen xewal seen seen sutura yàlla moo macha allah macha allah jërëjëf oustaz euh, oustaz kooku mooy Baye mbay Sall. waaw kooku mooy baay mbay Sall waaw. Mm-hmm. ñoo ngi la koy jaale bu baax a baax. di la ko jaale yow tamit di ko jaale auditeurs yëpp. di ko jaale waa réew mi. ndeysaan bi nga déggee kàddoom de xam naa ni ñoo ngi la ci jégalu sax te di la masawu. ndax mm-hmm. itam dañ lay fàttaliwaat ak di lu sore sori ci yow. Mm-hmm. ndax euh, ni waay jur demee ak euh, doom waaye auditeurs yi itam ñoo danañ ci bëgg. te itam danañ xam bu baax a baax góor gu baax googu nga xam ne moom moo génn àdduna nekk sa wayjur waaw waaw xam nga mhm. koo xam ne bu nit ñi ñàkkee liñ am mhm. yaa leen di dëfal mhm. boo ñàkkee liñ am boo neexut a dëfal da leen jaaxal ndax su boobaa lañ doon séentu ceew mbaa ñu ko cay fekk dañ cay fekk safaan ba dëgg la sunu mbokkum daara nag bu ñuy wax Ibrahima Cissé nekkoon ci wàllu fajri day wax ne bu ñàkk jotee lu waaye am lu nekk loolu ngay ñàkk dëgg la waaw nit du ñàkk lu mu amut nit du ñàkk lu mu amut est-ce que wax ju am solo la est que gis naa ñu koy partage ci WhatsApp yeeg yooyu mhm. yal na ko yàlla yokk wér amiin yaa rabbal aalamiin kon kooku ngeen doon dégg mooy Baye Mbaye mhm. doo noonu góor gu góor gu lewet mhm. man xawma nu mu def ba yar waaye mosumaa gis mu dóor mosumaa gis mu saaga mosumaa gis mu xuloo mosumaa gis mu meram mosumaa gis muy ñaxtu yooyu yëpp mosuma ko gis dëgg la ndeysaan waaw ah, waaw ku lewet la woon kon lool moom kay mën nga ne bay ba weesu lool sax nag ndeysaan est que ba weesu lool sax lu góor lu jigéen nag doom ji mu dóor dal mosuma ko gis man ah, waaw mooy bay bay mooy kàddu yooyu ngeen doon dégg ñu ngi la koy jaale bu baax a baax jërëjëf eh, keroog eh, dimanche ci guddi bët sëddee altine ci la wàcc ab liggéey mm-hmm. ñu denc ko càlle démb ngeen ko doon ñaanal ci mbàkke mm-hmm. eh, xanaa ma bàyyi la rek nga delloo cant mboolem ñi nga xamante ne ñëw nañ foofa ndax mbàkke moom démb la fa teew ci mbooloo bari na mm-hmm. te ba nëga ni nit ñaa ngi woote fépp di jaale ak yóbbante ay njaal ci way jur woowu ak di ma fekk ci kër ga ak di la fekk ci kër ga xam naa ci suñu direct suñu directeur bi Baye ku ne ñëw na fa nag waaye ñëwam gi moom leneen la ndeysaan waaw moom ci bis ba la euh, ñëw ba Mbàkke guddee lool mm-hmm. lool mm-hmm. ànd ak Pape Diangu seen safoor mm-hmm. ñëw na fa nag waaye ñëwam gi moom leneen la ci man it dëgg la ndax baayam ni ma demee ak moom moom Baye Omar Gueye mii looloo yëf ndax Baye Omar maa ko njëkk Sud FM mu fekk ma Sud FM kon bi waajuram yëgee ne maa ngi Sud FM mu woolu ma mu ñëw mu toog Baye Omar toog mu tegale suñu loxo yi daal di fompi rongoñam bàyyi nu ndeysaan tey moom baayam boole leen noonu allahu akbar ndeysaan waaw daal di fompi rongoñam mm-hmm. bàyyi nu mm-hmm. boobu am na lu mu xam boobu am na lu mu xam. Baye Omarine mel ni joxoñ boobu dañ ko ko joxoñ rek. mu fas yéene di ko doxal baa muy fekk baayam yàlla na yeex. amiin yaa rabbal aalamiin. wax naa ko keroog Pape jën te jàkk ji ma daan jullee sëñ Mbàkke. am na ci ñooñ dañ daan wax ne lu tax muy teg loxoom bi ci dënn yi. lu tax muy yàng tànkam yi. lu tax nangam lu tax nangam. ba ñol ñol ja ba ma nar a bàyyi jàkk ja mhm. papaay Baye Umar Gueye moo ñëw wax ca wax ju am solo daf ni mhm. mhm. su fekkee lii ngeen koy jame diine la sharia da koy bañ nañ ànd maa ngi ñu xeex ko génne ko jàkk ci bu fekkee ci bakkan la tege nag na ngeen ñu boole maag moom xeex génn ñu jàkk ji <laughs> loolu ibaara bu am solo la kon ñëfa ñëw ñëpp Baye ñëwoon bi amal na solo lool ñëwal na rajo bi yëpp région yeeg département yeeg bitim réew yëpp ba ci diaspora ba macha allah nag ñu koy jaajëfal sunu mbokk yi nga xam ne ñoo dëkk yës yeeg càlleeg <coughs> duy sa ngoog dëkk yooyu yëpp mm-hmm. ñëpp a ñëw euh, maire Touba mm-hmm. Abdoul Ahad Jaxate mm-hmm. moo ànd ak délégation bi nga xam ne ñoo jóge woon fee ci conseil économique ci njiital Ahmadou Bamba. ñoom ñëpp a ñëw. tey. Hmm? tabaarakallah Moustapha Niass bi ma wooyee yaram a ngi doon daw mu ne ma. Hmm. bi sama waajur wu jigéen génne àdduna. Hmm. ba nga fay dem tàgguwoo ma yëguma la. tàgguwoo ma yëguma moom président assemblée. waaw mu ne ma tey yëg naa ne demoon nga fa lu jiitu muy génn àdduna. dëgg mu ne ma suma ma fekkutoon bitim réew. lu ma mën a jàpp dinaa ñëw toog coot ci sa mm. Mm. ndax faye la ko loolee loolu it dara dara wécciwu ko rafet na rafet na lool tuwaat ah rafet na loolu it dara wécciwu ko du dëgg <coughs> ma dem fay sàll moom tam daf may wax ni man président mooy sama borom kër mm-hmm. mais yow yaay sama sëriñ loolu la may wax moom it yónnee na fa yónnee na fa délégation mm-hmm. macha allah euh, sunu waajur wala ca njari Touba Ndiaye mm-hmm. délégation am ñëw na fa. su ma leen dee lim du ci génn. Mhm. waaye daal suñ mbàkk ma tënk ko ne. Mhm. mbooleem ko fa ñëwoon. su ma leen limee su ma la limut. mu ngi leen ñaanal borom subhaanahu taala yàlla na la yàlla na la fay. te yàlla nañ ko yéex a fayante. Ali Imran. Mhm. Salif ma leen jiite. ànd ak ñoom Fat Diallo ñoom ñëpp. macha allah ñu ànd ca ca bis ba. yow tam kenn jiituwu la fa. ndax Baye Mbaye sa xarit la woon. su ma ne salaamaaleykum mu ne ma ànd sëñ Mbàkke ndax xam nga màgg dafa màggat waaye dafa bëggoon xaalis ndax daf bu sañoon fu mu ne ko di yor tool di ko yor jox di ko yor ndax da koy joxe ginnaaw yoon ak salaamaaleykum jox ko junni hmm. <laughs> ndeysaan bu ma ne salaamaaleykum mu ne ana suñu mbàkke su ko defee bu fekkee bu fekkee sori sori nga hmm. ma làmbub junni ne ko moo la jox junni bii mu ne nu lay def kay <laughs> Baye Mbaye waaw ah, yal na ko yàlla yërëm. amiin yaa rabbal aalamiin. Ah, yal na ko yàlla yërëm. woyofal suuf ci kaw amiin amiin. mille mille neuf cent vingt neuf la fi ñëwoon. Mhm. ba deux mille dix neuf juróom-ñeent fukki at am na ko. Mhm. màggatoon na lool la mhm. ab sëfoor la woon nag. waaye cëf cëfoor ga yàqutoon cëriñ ga. ab sëfoor la woon waaye sëfoor ga yàqut sëriñ gi. waaw cëfoor ga yàqut cëriñ ga. waaw lu ne def na ko nag ci cëfoor. nee na ma dawal naa ñun fukki at yu topp. ma ne ko waaw mu ne musuma tiim néew bu oto rey. Hmm? nee na moom moom maanaam dafa laa bëgg wax ne. waaw waxuma laa moom nag. moom ci boppam mës a def accident mortel waxuma ak sax nag dem di ko gis feneen. jeex na fekk na safoor nag fel nit. déewut waaw waaye ka feloon yorul permis mhm. comme déewut nag bàyyi mbay ñëw ne man maa ko fel. waaw ndax soo wekkee keroog kooka. Hmm. ki defal loolu. Hmm. moom dafa xëm. ndeysaan. ne ko yow mën nga cee dem kaso ma ngi ci dem naa nga mën a ko ndokk. Hmm. mooy kaso bu sama bos mooy gën a woyof sa bos. est-ce que ndeysaan <laughs> ndeysaan. ah waaw. perkal keroog ba ko gendarme ba euh, arrêté man sama instant la ko nettali. waaw wax ak moom ne ko dama lay tëj juróom benn weer. bàyyi ma yónnee guro. ndeysaan. ni ab Abdou dama jënd li ma goro mu jëndal ko goro ñun fukki dërëm mu ñëw jox ko gendarme mu ne ko danga may corrompre mu ne ko déedéet dama lay neexal. yow mi mu wóor dinaa dundaat juróom benn weer. Mhm. ba nga dama ci tëj kaso kay jar ngaa neexal. mu jox ko pièce am ne ko avance. allahu akbar <laughs> allahu akbar mag ngi ne ñoo bari ma lay ndeysaan. Mhm. Mhm. Lobaat Fall mii daana ko dawalal. daana wax ne oto bu mu am bala ko kenn war na ko sëñ Mbay Sàll dawal ba noppi door ma ko jox. ndeysaan. est que donc yooyu lenn la ci moom ku koy bàyyi mbay sëñ Mbàkke mooy nga doon déglu léegi ci kàddoom tubaarkàlla yàlla na nu ko yàlla yërëmal amiin yaa rabbal aalamiin loolu ko ñaanal lu nekk yàlla na nangu amiin amiin des ci ginnaawam di ko ñaanal wax naa démb nag mhm. jàpp ne bu la 21 septembre ñëwatee ngeen ñëw mhm. waaw ah duñ ñëw di ko ñaanal ak leen bu leen jàpp loolu mhm. keroog bañ ko sangee sàng ko hmm. jullee ko hmm. denc ko hmm. la ca charia ca gaw noppi woon li ngeen ñu doon def lépp may leen lii lépp nag ay aadala yooyu bu ko Alioune Sall defutoon ñu ne moom kat defut fii bàyyi defut nangam loolu rek nu ci wut dugal nag waaye tànt beek ak sees yëpp mënoon a fee ñàkk waaye bu fi ñàkkoon bu fi ñàkkoon. Mhm. nge coow li ne ci. mbokk gi ñol ñoli mhm. daw loolaa waral li dong nag. Eh, di daw di daw bañ a def aada ji man naa yàq ci mbokk gi lool. ma ko jar may leen na ngeen ko xamee noonu nag. est que. Mhm. may leen kii mbirum mbirum jaxalit kuñ ci kuñ ci jox jaxal ci yéen doom yi. bul ma wax ñaata la defal sa poos rek. man nag lu ñu ma jox mu ñëw jógal leen ko fii nu bokk ngeen bokk yéen ñëpp. ndeysaan macha allah. moo gën ñu naan ko dem diw jox na ko nangam ko dem diw jox na ko nangam jural dakk mu ñu ngi nii ñu tiim maag yéen ndeysaan yàlla nu mottali waaw ndax bu sa bàyyi demee bàyyi la ak say rak waaw daa war a tàmbalee ci transparence lépp leer seen kanam mhm. dëgg loo ko mooy rek bara ñoo mën ñoo tàmbalee foofu déclare la ger guerre bu jeex mukk mhm. heureusement bu yooyu peut-être mën na caa ñàkk am. alhamdulilah incha allah ndax duñ ko jóg dara ñoom bu soobee suñu borom. yàlla baax na waaw yàlla baax na jërëjëf bàyyi na doom yu gën bàyyi na doom jigéen. sët yu jigéen mm-hmm. yi it nañ ko kaamil ñoom dong. Mm-hmm. nga xam ne ay sëtam dong. ñooy ay sëtam jigéen. comme jurul sa baay moo jur sa yaay. est-ce que sët yu góor yi dañoo ber wàcc seen kaamil jàngal xatma ba seen bopp ñoom it. est-ce que ku dul sët bu góor bokkoo ca. Mm-hmm. mbooloo moo fi ñëw nag door bokk seen bu kaamil mais hmm. mbooloo bokk seen bu kaamil macha allah am na ñooy yal na yàlla nangu yëpp yal na yàlla nangu yëpp jërëjëf yow tam jërëjëf ñëpp nag jërëjëf ba bitim réew hmm. téléphone sama téléphone moom dama doon déglu mu yàgg léegi mais libre laa koy def dëgg la ndax sama noppi doon métti macha allah wallaay ba nga ni nit ñaa ngi woote wallaay ndeysaan joxe seen i njaal dëgg la alaaji Sëriñ Seck bu C3S mi ngi may woo léegi rek waaw di wax ne oustaz ndax suba dana nekk Mbàkke wala mi ngi Dakar jot na ma jot na ma ma ne ko xam naa ma kër ga jot na ma wallaay ndeysaan eh, ak kilifa yu bare bare bare ñoo xam ne ñi ngi yóbbante am njaal ak a woote. ndax mm-hmm. moom saa boo masaana dem Mbàkke. Mm-hmm. ci jamonoy azaka mm-hmm. la ba Baye Mbaye di njëkk laaj mooy ana Serigne gis nga ko am. <laughs> ndax jàpp ne moom dana ko kii. waa gi jot nañ sànq mu ne ma nag yi moo diis waay nekkoon. ci ña toog laay toog. dëgg la waaw dëgg la na. tubarkal am na solo oustaz jërëjëf ñu masawu waat la ko bu baax. directeur ki ñuy wax tam Aline Aline Lo. bu lobu maam Diarra. kenn jiituwu fa délégation. est que kenn jiitu fa délégation. Mm-hmm. Ah, waaw waaw. Mm-hmm. loolu moo war te itam àdduna noonu la. Mm-hmm. Eh, te yooyu moo dox ci diggante yi. xam naa li ma wax. jamaatu Ibadu ba nga baal ma. waaw ñëw nañu fa. Mhm. waa waaye ñoom Oustaz Ahmed Dame Ndiaye. Mhm. daanaka fa lañ yenn. ndeysaan macha allah. moom daal moom daal tubarkala daal Sénégal ñëpp ay ñëw. am na ñoo xam ne ñu ngi ci yoon wi xam naa ne. ndax ñëw ñëw mbàkkee càllee xaw war a xat ci ñoom te xamuñu woon ba xam ñëwagul nga ci dëkk bi. mu mm, ngoog mu ngoog waaye ñëpp bu ñu la fayee sa borom moom di nga bari aw gan. ndeysaan ndax eh, ñoom laay Mbaye Peex ak nit ñu baax ñooñu ñooy wax ne ku faatu bu yoonu sëg yi xumbee ka faatoo baax. waaye bu fi gil ndigaale gi baree rek ñi fi bàyyee baax loolu nag day tegtale ne loolu la te li ma waxoon ci almisbaaxu barki dem bi ne mhm. eh, ku faatu eh, sa jëf yëpp day jeex ba mu des ñett ni ko yonent bi waxee mhm. waaye da caa boole woon doom ju baax ju lay ñaanal defe naa ne ku génn àdduna bàyyi sa ginnaaw doom juñ ne mooy Oustaz Alioune Sall bu la ñaanalut sax ñaan yi muy ñaanal yi ko julli di ñaanal ak euh, li muy leeralal julli seen mbiri diine te ku ne xam na ne loolu way jur la ci sabab la ci doom man koo def loolu rek dal na am xel dal na yàlla yërëm ko mel na euh, mbokk la fi bàyyi na mu mbokkal ndey ak bàyyi mhm. mooy yaayu kii toog ni di pap ji mhm. ndeysaan kooku dong la fi am ku mbokkal ndey ak bàyyi ndeysaan bàyyi bàyyi na fi nag góor ku mbokkal bàyyi waaye ku mbokkal ndey ak bàyyi moom kenn rek a fi des kenn rek a fi des ku mbokkal bàyyi dong nag mooy bàyyi Cheikh Sall bële mhm. ñu wax Cheikh Degas mhm. Mhm. ndeysaan yal na ko yàlla yërëm amiin ñu ngi la koy jaale bu baax jërëjëf jërëjëf di ko jaale waa Càlle yëpp di ko jaale mbokk yëpp ak njaboot yëpp ñu ngi leen koy jaale te di leen ko massaw waaw ñu bari nag ci yéen lañ ko dégg yaag Maodo Faye ñu bari ci yéen lañ ko dégg yaag Maodo Faye dëgg la lay ndeysaan jàmbaar ngeen looloo war suñu way jur la ndax <laughs> yow moom koo am rek am nañ ko te moom it noonu la ñu jàppe woon nag euh, waaw wax dëgg yàlla xam naa li nga wax ne sëfoor la boo xam ne sëfoor gi yàqu doon ak sëriñam maa ngi koy wax léegi ñoom aadama njoon ne leen Baye Mbaye bu nit boppam masaana metti boo ko mhm. yebalee ca Baye Mbaye bu tegee loxoom bu moccee day mocc ba nga ne ko sedd na man damaa yaakaar ne bagage yooyu sax xanaa war na la ko fee bàyyil yooyu moom booleeg yi nga yoroon ndax yooyu moom ustaas yi leneen la woon man diggante diggante ñaar laa nekkoon mhm. mook alaaji njaga njaay mook alaaji njaga njaay waaw ndeysaan démb Cheikh Abdou may tooñ naan ma damaa bëgg fee ñëw am fi ñaari weer mhm. seet ba xam ndax am na loo ma sa bàyyi mhm. loola sama bàyyi bàyyi yéen ndeysaan waaw Cheikh Abdou Ndiaye waaw yow tam loolu ngay na ah yàlla baax na mhm. yàlla baax na waaw loolu rek la yàlla baax na macha allah yal na ko yàlla yërëm amiin la koy masaw bu baax a baax di ko jaale auditeurs yi déglu ñëpp ñi la jotoon a jot ak ñi jotoon a woote te jotuñu ñëpp ñoo ngi la koy masaw jërëjëf jërëjëf ñu daal di jéem a jotaay bi ci xaaj bi jombut bu ñu ubbee téléphone bi jombut li ci ëpp sax ci fànn googu lay jëm xam nañ ndax ñi nga toll ci ñoom a ko waral mhm. waaye ñu ay bis day ñëw ñuy ngénte wala ñuy céetal ak a bég bis ñëw ñuy dëjal waaye noonooy àdduna moom kay suñu borom daax de hmm. adduxaka hmm, wa abbuka wa abbuka jeex na fee mu ne ak ak naa wa ak naa rek amaata wa ahya wa ahya jeex wa naj bi Mm-hmm. loolu yëpp moo ko yor. loolay wan nañu macha allah sa xarit bi Saliou Sow. bi mm-hmm. uh, boo albidaaya. waaw ndeysaan moom itam dafa nekk France jamono ji waaye nee na mi ngi lay jéem woo jotu la. yëg naa li nga xam ne mooy xew. wallaay ndeysaan yal na ko yàlla fay yëg naa loolu macha allah. jërëjëf barkaal ah, jamono ji de jamonoy nawet lañ nekk oustaz taw bi. Mm-hmm. Euh, ñaare inondation daan nañ wax ne jeex na waaye jamono ji itam dafa mel ne dafa tàmbali di ñëwaat. ba sax tey état mi ngi wax dekkal plan Orsec boobu nga xamante ne moo fi amoon di wala xeex wàllu inondation yeeg taataay yeeg yi nga xam ne moo ci am nooy jàngate loolu ak nawet bi. gis nga sëñ Mbacke. Hmm. wax léegi inondation. inondation waaw. <laughs> tam lan laa mooy. Hmm. waajur gu fee jóg. <laughs> waajur gu fee jóg. déedéet ndax lan. gis nga ñun li ñuy dëkkee. Hmm. état bi def ko dul rëdd. ñun ñoo koy rëdd. est-ce que seetlu woo loolu. waaw ñun de ñooy rëddul suñu bopp ni ñuy kii. fi ñu war a dëkk état du wax ni yéen a war a dëkk fii. nun nooy wutal suñu bopp fi ñuy dëkk. ndeysaan. kii wutal boppam fi mu dëkk nag. ginnaaw ab teeree lum tuuti tuuti. quarante cinq millions may lu ko. su dund gi yëpp mën naa yëg ci terrain. wallaay foo ko foo ko am rek. bokk ko fa. moo taxit de. waaw nit ki yorub ab bayaalam daal daal di koy lotise rek génnee ay këram daal di jaay. nga xam rek jaay nit ñi. duñ xool euh, assainir ko wala ndax fii palaasu ndox la woon wala lan la. mënoo fi am mbedd mu toll nii fii mbàkk si la. déedéet déedéet. Mhm. léegi nag loolu tacc tacc googu. Mm. lo loolu loolu tabi'a nanguwu ko. nanguwu ko. tabi'a nanguwu ko. Mm. lu rek la kat. Mm-hmm. léegi boo demee. Sandaga. bu hmm. tawee ba nopp ndox mi def. xanaa xanaa dem ba ci jëppal yi sax ay liberté sikaab yi sikaab yi nga xam tubaab yee ko tabaxoon moom du taa. gis nga am réew. Hmm. état ba mooy yor dëkkuwaay yi. Hmm. kuy dëkk fu dëkkut mun la jógal fii. dëgg la xotti mbedd ya ba mu ne yàng. kër ya sori mbedd ya. am déet. mu am ay tëli. Mm-hmm. dem ak a dikk. Mm-hmm. jamono ñooy. dëgg la dëgg la. gis nga jaxaay gii. Mm-hmm. am na bu ñu ko ko defee woon. genn ndox du fa taa. xam nga nag jaxaay sax moom daf may jaaxal bu ma demee fekk mu taa oustaz. waaw ndax gannaaw moom bañ koy sanc taa moo tax ñu sanc ko. waaw dañoo jële nit ci ay taa yóbbu leen fa ndax dawum ndox demaat foofa di taa moom. léegi ñun fi ne dem daaru ci bu dañuy të damaa xamul daal da ngay wëri wëri doo lu ko may doo fa dem te oustaz at yi yëpp seen maanaam dakaar dafa tawul ndox mu bari mu toll ne mi mu taw ren li mu taw ren sax kuy xool xam ne mënoon na waroon naa a taw lu ko ëpp léegi nag boo jógee ne da ngay da ngay def euh, plan euh, nan hmm, plan xanaa orsec ak nangam waaw su fekkee da su fekkee da nga koy def hmm. nga dem ŋacc ci ndox ma ku la wax ne bu subaa yàlla du tawaat lu ëpp li nga ŋacc ah, kay ah, wutal ndox mi yoon bu tawee mu dem mooy yoon te loolu nag dañ koy waaj avant nit ñi dëkk fi ñu dëkk dëgg la de ñun de buy taw oto yi dañuy féey dëkk bi kenn dootu dem kenn du ñëw ba fii waxee yow ndox maa ngi ci te monsieur le maire ci ci ci ci quartier yi mhm. lu tax chef de quartier nekk fa monsieur le maire nekk fa chef di village yooyu mhm. ñoom lu ñu li ñu def su booba mhm. war ñoo am liggéey tàmbalee ko ci sensibiliser nit ñi ñu bañ a sakkanaal yi lu koy da ngay seen koo xam ne ndeysaan fële muy tëmb di dox wallaahi xam nga ne fee yoonu ndox la woon. waaye ñàkk pexe tax mu dem samp fa lam fa am. dëgg la ndox mi ñëw nangu ko. dëgg la dëgg la. lii rek la kat. wallaay. noonu daal li ci ëpp. Hmm. noo ko def suñu diggante ak nature bi la. Hmm. noo ko joxul cëram mu xàññ suñu cër rek jàmm na ñooy. Hmm. nañ ma baal ci ton bi nag. am na solo am na solo di oustaz walaay jar na ko ndax itam dafa metti lool. ak metti ba noppi di di répété wu. Mm-hmm. waaw rek di di répété wu ndax buñ demee ba ne jeex na rek mu tàmbalee ñëwaat dañoo war def ay jéego yoo xam ne da koy wàññi boo demee tey fu mel ne tëngéej dañ naan la ñoo mënuñoo dem fenn ndax euh, terre bi nga xam ne ñu ngi ko doon defar yenn canal yi ñu sakk ko yenn yi ñu kii ko maanaam am loo xam ne daal ak négligé la wala jàpp ne tawagut agut wala di gaan nga ñàkkum ndox wala doo xam lan la ak itam bu fekkee dëkk bi yëpp fu ci nekk dañ koo baare mm-hmm. waaw daf koy tàmba ki pax mm-hmm. bu ndox mi ñëw di dem zone de captage daa waroon a am fu fu fu dëkk bi noyee daa war a am. waaw zone de captage moom fi ko tuddoon ci Dakar léegi ay kër la ni ñëpp. jeex na ak fii suñ ginnaaw ni waaw. ci te kër góor gi <laughs> xaw ma la nangam nangam. waaw place yooyu xam ne ay réserve la waloon doon léegi ay ville la kenn mës koo gis. ko defee ndox mu jóg foofu nag dem fa nga xam ne moom ñooñu ñoo ci gën a néew dool rek mu tëdd fa. Mm. te ndox kat mën naa jóg fi ba jël ma xam mbaakol. waaw macha allah. barka euh, boole ci nag euh, leneen. maa ngi bëgg nag lool suñu mbàkkee. waaw damaa jaawale sànq. xaw ma damaa damaa fàtte sànq. nag ma baal. la euh, le syndicaliste Cheikh Diop. waaw waaw. léegi la fa jóge ne ma moom waaw lay ndeysaan. sama yaram daa daw sax ndeysaan waaw looloo war. waaw mbaaxul gi ma gi nga wax moom. waaw ma ko fàttali. ndax daa ànd ak mbokk mu dëkk Thiel ma xam mbaaxul. ndeysaan waaw suñu Thiel ma xam gële. suñu ma xam gële. ndeysaan maa ngi koy loolu daal lool de macha allah. noonu baax ah, ko rek bay bon nga wax. ñoo ngi woon ci ndox mi waaw. ndax ndaxte yëggoo tam wàññiwul dara. am na solo. Eh, nawet bi sax da cee boole ndox mi waaye boo ci nag ay dënnu ren maanaam ñu naan dënnu gi rey na ni dëb sangam dënnu bi daanu na place sàngam te nag fi jamono toll ak euh, léegi développement yi bu njëkkoon maa ngi koy wax sax naan bu ñu nekkoon tool dañ naan dënnu gi ci taax yi euh, ci tool yi lay daanu waaye ci taax yi am nañ euh, jumtukaay yoo xam ne day capté dënnu gi di ko sànni géej mm-hmm. daa mel ne loolu daa amut dënnu gi moom nu moom nu mu demee waaw xam nga su fekkee am na mm-hmm. damaa defee ne mën naa màggat ci li ma yaakaar. man naa màgg. mën naa ko bi daas. mën na faa def nangam. ma defee ne loolu buñ ko dee seet di ko seetantal. bu dëkk bi du yokk yooyu war naa yokk. maanaam yenn tabax yu mag yëpp dañ cee waroon def ay paratonnerre yoo xamante ne ñooy. waaw capter dund yi di ko. bu ko defee fa fa àgg fa. màggale ko fa. loolu rek la. parce que fa mu doon dal foofa mën naa am euh, paratonnerre yi àgg ñu foofa. Mhm. kon daa war ñu di seetantal fan lay yëpp. dëkk ba màggee ba foofu. ñu ba foofu dëkk ba àgg. te bañ ko yemal Dakar dong. na càlle am na cil ma xam baax am. wusangoog wurusoo gi. yëpp am. ndeysaan am na ci solo ndax li mu jarkat moo gën a yomb nit. wallaay wallaay nit ak itam ma lakk bërëb sàngam toj na nangam yooyu yëpp mën naa ñàkk. wallaay ndeysaan. Euh, lu am solo la euh, ci nawet boobu nga xam ne ci la ñekk yàlla nañ ko muurloo. amiin waaye ñun daal yi fi xew moom bari na lool. Ah, waaw Euh, fële ca île de leen moom itam ab île bu nekk fii ci Ndakaaru mhm. nit ñi dañuy faral di jël gaal di fa dem mhm. di e, def ay tourist moo ko doxantu ko féexal seen i xol mhm. genn gaal ca gaalee nag caa def ba am ñeent nit ñu ca faatu wax na sax ministre bi tey ne dakkal nañ di dem ci île ba daal ba jëmmi jamono lañ jël ci matukaay mooy jàngate xëy accident yooyu léegi jéeri ji la ak géej gi man ko seetaan ndànk de sànq de ma ca commentaire yi ma ca def mooy moom daanaka jël ko ñoo ñuy takkari daal bu ñu fi nekkee mm-hmm. ku ñu ñu doo fi dugg mat na sukk mm-hmm. mat na sëkk mm-hmm. loolu rek waaye fu danger nekk daal wax dëgg yàlla maras na ko mën a tere nag ne bàyyi leen faa dem ba ba jamono neex wax nañ dëgg nag kon su boobaa barab sàngam daal dañ bàyyi leen faa dem ba jamono neex waaye nag sunum réew dafa neexut a tere waaw neexut a déedéet lu tax li tax mooy li ngay tere ku koy def nit mën na xëy bu subaa def ko. ña koy tere teg ko loxo. am ku ne teggi leen ko loxo. ñoo la ñooñu duñ ko teggi loxo. ñu yéeg ca kaw. kooka ni eh leen ko loxo. ñu teg ko loxo rombal naan yow. <laughs> da maa xamul. ndax da jàpp nit mu naan la da ngay sonal sa bopp rek wala mu rombaat la ba sunu réew. <laughs> boo demee bitim réew léegi. boo ñëwee parking. Hmm. doo fa fekk yàgg yàgg machine yi. Mhm. da nga ko neexal. déedéet machine moom xaw ma noo koy gere. jeex na. Mhm. yi ñuy tere looloo dëgg la tey fi nekk nii ñun dëkk bu la neexee def brûle-feu. Mhm. bu la neexee dugg sens interdit. bu la neexee surcharge. dëkk bi waaw bu yor oto bu amul ci këyit. bu la neexee yor oto bu amul faar. dëkk bii. bu la neexee yor oto boo xam ne pare-brise bi amut. da nga koy def ay ngegenaay ak ay matlaak. ay ay ay li ñuy sangoon da di ndampe ndampe <laughs> lu ne nga def ko ci ñun loolu <laughs> lañ mel moo tax la ngay tere fee fii ne nit mën na cee xëy suba mhm. te du dikk dara ma wax la ko tey mhm. yow mi ko tere yaa am problème bu mhm. suba waaw ba sukran mm, tubaarkàlla jërëjëf alhamdulilah ko ñëpp bàyyi rek ginnaaw tere ko waaw lu fiy daal nañ ko bàyyi tey sàmmoo te sécurité bi nga xam ne war nañ koo jël rawatina ci ndox mi te kat lu may attaqwa waaw waa mooy lan baat mu mën a dégg barki dem mu nekk ci muy ragal yàlla mm. loolu lay teg ci noonu Hmm, mooy lu ñuy tere nga bàyyi ko. am jom. <laughs> macha allah macha allah yal nañu ko yàlla defal. amiin amiin tax waa am na solo lool oustaz. waaw. Euh, histoire Sénégal bu senegal bi ñu doon bind. Hmm. moom it de ba tey ñu ngi ci. Hmm. dama ne woon di bind histoire ba mu nar indi histoire nag daal ne dootu ko jaral. bu ko indi wutam jëmmi histoire yi tool yi mu indi moom bari lool. bari la nga déglu ay kàddu yoo xamante ne xam naa ne da nga dar sa gimi ndax da naan kàddu gi buñ ko tee mën naa jur loo xam ne oh. doon. loolu man njàngam nga ci def. yéex a bind une histoire. ah dañoo yéex lool. ma jàpp ne ñaan dañoo teel ñun ñoraguñ sax ñoo bind ko dañoo yéex a bind histoire. Hmm. dégg nga. Hmm. bi nu koy bind niveau yu nu war a am ba nangu nu bind ko. Hmm. loolu ñu gudd. ñun yi nu tàmm mooy. yi xaadi sàmb di wax ab jéey. loolu la bind histoire. dëgg la ndax ba muy nettali suñu daara ja am na ci loolu su fekkoon damaa jox kii ba mu censuré mhm. ba muy wax ni léegi buñ daan buñ daan rëbb lëg mooy ngam lëg ya waaw konoon <laughs> ah, waaw yooyu de moom ku ne daan ni di kono léegi moom bàyyil mu sedd léegi bàyyil mu sedd <laughs> dégg nga waaw donc histoire noonu la mel boo ko bir dafa am foofu moom boo boo ko bindee dam ko lii noonu. waaw est-ce que du noonu. ku dem sax noonu la de. Mm-hmm. ku dem noonu la de. Mm-hmm. waaye nag boo négocier dindil kooku loola. Mm. keneen day ñu ne la dindil ma lii. dëgg la dindi nga tàmbali nag. dëgg la waaw. loolu mooy yëf yi. ndax ndax léegi nag am nañ fi bu toll ni bind ko ni mel. Mm. wala dañ koy bind niñ bëgg. loolu tam ñaari yëf la. Mm-hmm. waaw. démb réew mi da ko koy bind. Hmm. da ngay bind démb réew mi rek. Hmm. nun ñëpp nangu démb réew mi. ndeysaan waaw. lu ko may léeg la nga dégg benn wolofal boo xam ne wolofal ñaar nga ne hmm. teggi leen teggi leen kaset bi. <laughs> wallaay teggi leen kaset bi fekk démb réew fekk na ah, dara. defut dara. te yow it dara nag. déedéet. <laughs> boo boo comprendre. daanaka boo comprendre daanaka kenn defu ci eh, bu ñuy waxee dañuy bind histoire réew mi oustaz. ak yi ci am nii léeg li minimi lu bees la mm-hmm. waaye am na lu xewoon ca mag ña lu jiitu histoire bi wallaay ndeysaan te la ci ëpp nag dafa rafetoon lépp rafet sax waaw lépp dafa rafet waaw lu ci bari itam ñoom ñu bàyyi ko ci kumba mu yëfi ma yàlla fayal leen waaw amin yaa rabbal alamin mm-hmm. léegi buñ ñu ñemee ba diggante yooyu nag ñu bëgg koo def mu nekk lu sensible ba mel ne diggante ñaari parti politique est-ce que noonu la mbir mi war a def déedéet xam nga <laughs> sëñ Mbacke hmm. bu ñu ab commission ñu ne li bind du noonu. Hmm. waaw lu ci yooni lu ca yooni te nga jël mag. moom song ko moom moom lu mu ci def. dara dara loolu lay caw li. wala nga bëgg a song ab comité wala nga bëgg a wax wax. ñoom ñoo yàq ëpp. ñoom luñ def. Hmm. kay booy song. Hmm. nel professeur Iba Der Thiam. ah lii kat noonu. wala wala sa commission bi du noonu. waaye romb lan fan ak ñoom. dañ ci mag sàngam song ko moom moom lu mu def. mel na loolu jaaxal na ma. waaw loolu de loolu mooy yëf mhm. loolu képp mooy yëf ndax xam nga ngortaan. ngortaan mhm. picc muy jor garab yi. dafa dem ca yéer gan ne ca ne ko kàkk. Mhm. boobam métti mu ne ko kàkk muy ñett boobam métti. mu xam ne fii doxut. mu xool seen mbib. garab mbib. waaw ko loo may xoole mu wax ko mbir mi. waaw comme moo gën a neex a gajji. su gajjee sàll bu day dugg. Mm-hmm. mu ne ko xoole. c'est-à-dire bëgg koo sippi mm-hmm. mer mi. Mm-hmm. waaye wax dëgg yàlla am sunu mag ñi. Eh, mbàkk defuñu dara. bu dee luy bind ña bind la. wala commission ba wala président commission ba. waaw. waaye daal wax dëgg yàlla amu ci menn mag moo xam ne jàppe ci song nag mbaa nga dugg këram. te loolu mën naa jur ay ñol-ñol. mën naa jur ay yëf. mën naa jur ñu wax la. mën du ne mën na ko jur. wallaay alfidatu nag naa ila ànd law man ay mu lu am solo la oustaz ndax itam day dem ba mujj yàgg day day am yu muy yee te yooyu man naa ñàkk te itam euh, loolu taxuloon bind histoire réew mu jóg déedéet buñ dellu si waate ci aj bind yeeg ñi doon bind man jàpp naa ne itam am na détails yoo xamante ni itam wares na cee a bàyyi xel ci am bind rat na dem ba publier door a génn nag di jéeguloo ko defar mbind moom hmm. mbind moo mel noonu boo laaj ñoo datim ko liy bëri daañu xam ni bind beneen la mm-hmm. jamono li ngay bind li ngay bind mm-hmm. àqi da nga ci àndal conviction bu dëgg mm-hmm. ba ni lu wér la commission mën nañu dal si ñoom ñëpp daa abay lii lu wér la ah, ndekte bu génnee jur ñal ñi loolu yombut nag waaw loolu yombut waaw ñu leen ci encouragé di leen ci jaajëfal waaye di leen ci masawu nag. dëgg la ndax yomb de. waa waaw fatàlla buñ ko junjee noonu rek mu doy. ak kàddu yi nga xamante ne ñu ko yëkkati te kàddu yi nekk kàddu yu te yëpp te doon ay mag. xam naa bu ñu xoolee jamono ji ni réseaux sociaux yi mel ak kàddu yu ñu yëkkati yëpp bu dee am nañ dara dara ci yëg-yëg dañ dellu siwaat ginnaaw ci seeni i kàddu waaw euh, wax kàddu yoo xam ne mooy indi jàmm parce que jàmm lañ gën a moom la ñuy xaar ci kër yi rek nag rek jàmm la ñuy xaaral aussi yàlla na ko am ñun ñëpp amiin ci jàmm mm-hmm. mag ñi daal liñ liñ liñ rafetle mm-hmm. liñ baaxle mm-hmm. defar na penc la yëguma ci ñoom nag kuñ naan yii dañ ciy jàmbaaram man xawma ko ci de déedéet. la euh, damay wax ne ñoom def na leen war lépp. waaw. ñu ñëw seen ginnaaw. la ñoo war a def ci taal bi matt gu ñu war a xambaat ñu xam ko. ah mm-hmm. matt gu ñu war a jubbanti ñu jubbanti ko bu jara xar ba mu dugg ci li ñu xar ko ba mu dugg ci cin li mm. jàmm na ñooy way sukura jërëjëf oustaz jërëjëf ci euh, tomb yooyu ak euh, kàddu yu rafet yooyu ci wàllu muuraay de laay dellu si moom it ci actualité bi waaw école ba leen di see Sandark gannaaw bañ fa teree xale yu muuru <laughs> euh, coow li ne pour bañ nangu ne léegi sax mën na ñëw ci waxin mm-hmm. dañ leen indil ay xeeti muuraay yoo xam ne am na yu jot a gis ci ci internet bi ay xeet fulaar yoo xam ne daal moom lañu war a muuroo. Mm-hmm. yow loolu noo koy jàngate xanaa rek jaaxle ci lool. xam nga école bii amoon na ca France. Mm-hmm. wala bu ko mm-hmm. ma ca ca ca Arab Saoudia. wala bu ko niru. xëy fa ne dañuy def muuraay. <laughs> ca Arab Saoudia. day dem tëj école ba di dem leen ñibbi. ndax noo moom sunum réew. ñun nag problème bu leen dul def. réew mii gone yee di jàng seen bàyyee moomu mi waaw ba fañ ko samp suñ seen bàyyee ko moom jaww ja noonu suñ tuut sa fay dugg noonu nga ñëw na ñu ne la bàyyi si diina te ñëw jàng si ñu ne la ren sax la ñu koy bu déwénee moom doo fi doo fi inscrire man question bi may laaj mooy ndax ndax doomi jullit war na faa jànge loolu lay question ma question maanaam ñoom dañoo waroon a ful bañ faa jàngi waaw ah dindil sa muuraay gi te muuraay gi mbàkke hmm. du aaday naar déedéet waaw looloo mën naa wax nag te même su doon aaday naar hmm. bu ko sariya tegee loxo hmm. day jóge ci aaday naar ñëw ci sariya xam nga luy sunna mooy lu yonent bi def mbaa lu wax mbaa mu gis ñu koy def mbaa ñu koy wax te waxu ci dara man muuraay même bu doon aaday naar bu ko yonent bi tegee loxo. léegi nekkatul aada su boobaa sunna la. dëgg la nekkatul sunna léegi farata la. sunu nag léeg nga dégg ci sunu jàngkat yi. ki ñi jàng mbindum tubaab. jékki-jékki ne rës ci diine ji. waaye nag cay. wa inaa lahu la xaafiduna. maa ne ku ma doon tàggu. Mbàkke. Hmm. ku ma doon tàggu. ku tàggu saa si. booy dëkk da dëkk Modou Lo. mbaa nga dëkk Ballay mbaa nga dëkk Bombardier ah wala mbër mii santoon ndaw ci dëkk Kaolack waaw Mouhamad Ndaw <laughs> waaye mbër mi nga xam ni mooy allahu hmm. wàcc alxuraanam ji jox koy malaak ñit ko Muhammad naa bi ñu ko waajalee ba defar ko ba noppi hmm. rikk waaye ku jàngul alxuraan jooju bàyyi ko ñu ko jàng hmm. bu débat ne fu ko alxuraan ji wax ci li nga xam dégg naa ko ne suratul xijaab ba ma ko lii de mën a ah suratul xijaab amul baqara ba naa si téeméeri saara fukk ñeent amul suratul amu ci woon hmm. ko mujjee jàng kay fekkuñu nag suratul xijaab amut an nuur moo am hmm. ak laxzaab ku hmm. ca nekk wax nga ci muuraay muuraayu soxna yonent bi ak muuraayu suñuy soxna noonu jilbaab ak xijaab kon nag léeg-léeg nga dégg ko sungu rek jikk-jikk di alxuraan ji am na ko fi songoon daat ni daat ni faatiha ji waa Égypte ñoo ko bind baax na kenn mu ko songu ba jëlee ci ndam nag du am ah, du am. inna naxnu déggal def waxul naxnu képp daf ne inna. inna door ne nax nu nun ñii. <laughs> ñoo ko wàccee te ñoo koy wat. muy ñun ñii. Hmm. xanaa suñ bàkk ñun doyoon na na de. waaye ñun ñii. <laughs> na seenub teewaay waaw. Hmm. ñun ñii ñu ne waaw. Hmm. mu ne ñoo ko wàcce. ñu ne waaw mu ne te noo koy sàmm. ndax bu fi alxuraan jógeen du jóg fi kon kenn mënu ko song ba jël fi mhm. man léeg ma naan sax dañuy juum ñoom wala man li ñuy tuddee ak intellectuel laa dul xam lan la ndax léeg-léeg ñu bàccee nit am njàng wala aw aw lef wuri waaye léeg-léeg daal ab gëstoom da koy nax baree baree bare intellectuel mooy ko tubaab bi nangu sa xam-xam waaw mais day fekk nag boo waxee ba noppi da nga naan kii bopp bi dara. ko waaw parce que li ngay wax naan li ngay li ngay indi yow ci maanaam ci wàllu xam-xam te ko du xam-xamee daal. waaw mais tubaab bi dégg dama la tubaab bi. xam nga waxum. anil axirati hum gaafiluun. waaw defe naa noonu la ko waxee. noonu la ko waxee ya'lamuuna na mina l-hayaati dunya. Mhm. Mhm. adduna moom lool fi de xam nañ ko. Mhm. waaye alaaxira amuñ ci. amuñ ci certificat. est-ce que. loolu alxuraan a ko wax. moo tax de. moo tax ku ci dugg ci yooyu rek. daal di daanu. moo ci dara. wallaay wallaay. waaye daal ma ma doon ñoom. bu may song damay bu may dëkk damay dëkk mudloo ma xaat ko. Mm. <laughs> mbaa Balla Gaye waaw mbaa Tyson ñooñu lay dëkk wala yë wala yëkkati sama xar bi. Mm-hmm. du dëgg. waaye dëkk alxuraan wóorul. dëkk alxuraan. waaw waaw. la te muuraay muuraay kon oustaz du du aaday naa du problème mu benn civilisation waaye mbirum diine la ci boppam nekk mbirum pas-pas te it yëmul wax ci ne encore waxaat boole ko ci waaw du fiq waaw du bu nit bu ma neexee def bu ma neexee bañ def cëy sunu maam ji maam suñ tubaa ndeysaan lu wax walantanaa li diina xanaa foofu la yem waaw munoo am diine munoo am diine mukk waaw sa diine moom du mat <laughs> xatta tas suulu gis ma ki muur rek mbaa bàyyi maanaam jigéen daal sëñ Tuubaa nee na li fee muurut aw yaramam diineem mënta mat jax na ak lu mu jàmbaare ak jàmbaar nag sun camisole yi aadala la waaw su musóor yi du seya dëgg la dëgg la moom ko li ñu jëli naar teg ci bopp bi ñëw bu noonu waaw moom mi doon wax kay naan aaday naar la li soloon bi mu koy wax loolu mooy colog aada waaw kay loolu looy colog aada la ko loolu kenn du ko duggee bàmmeel déedéet kenn du ko ci liwaan ñu lay du ko toog ci kanam ilaan ñu lay muur ngay sëyi waaw waaw sol googu noonu waaw et nañu nañu nañ ñu xaw a tuuti nag ñoom bu ñu ko bu ñu ko mënta def cent pour cent ñi ci lañ xam ak yooyu tam maandu ci mbir yi. xanaa nit nag sëñ amoo obligation ne lu xew wax nga ciy wax. barki démb man journaliste bi xam nga lu ma wax. waaw lu tax Iba Der tànnu la ci. bi ah bokkoo ci. man ko man ma ko du ma soriye. jeex na waaw. Ah, loolu du sama domaine. Mm-hmm. dëgg la mu laa ko mu jax tàkk. waaw loolu du sama domaine xam nga mm-hmm. dugg naa xaraje génn na. Mm-hmm. loolu lay sama domaine. buñ bindee jox la nga liir. <laughs> jàmm ni ñooy. waaye sëñ Mbacke. waaw waaw mënuma ko mbaa xamuma ko dafa yomb. Mm-hmm. dëgg la de dëgg waaye toog ci débat. Mm-hmm. am loolu lenn loolu song. Mm-hmm. loolu alxuraan ji du dëgg. lépp lu nit mas wax ci réew mi génn daal di mars wala ñu koy wax. ci wax jii lañu war a gën a artu ne leen na fi. wax na ko barki dem. ñooñu di di di di sàmm liñ bokk. aar liñ bokk. aar liñ bokk. waaw liñ bokk moom dañoo defe ne pétrole be gaz bi dong. ñoo ngi koy aar nañ ci boole aar liñ bokk. diine ji liñ bokk. Mhm. waaw kon nag uh, wala boo tax mu am kon kuréel yu taxaw ñoom it di aar diine ji ñu bokk bu defee ñu boole lépp aar ko. loolu laa bëgg a mooy comme ñoom duñu aar liñ bokk. waaw nañ ci boole ji diine ci la bokk. boole ci alxuraan ji. Mhm. boole ci éducation bi. Mhm. boole ci sunu xar yi aar liñ bokk. effectivement su boobaa bu ñu ko waxee ñun ñëppay ñëw ca lañ bokk. dëgg la. waaye daal muuraay du aaday naar waaw ñun nag oustaz sax li ci am solo dëgg-dëgg ci muuraay te ruslu mooy daa mujj soppaliku mu nekk loo xam ne suwaa la kum neex muuru kum neex bàyyi nga xam ne muuru taxut a baax bañ a muuru itam teexu maanaam taxut a yow yaay xool daal bu la neexee def bu la neex man naa ne buñ buñ yemoon sax ci banaliser ko noonu sax mooy sëkk gàcca rawatina nag buñ ci bëggee boole nag génne ko ci lislaam moom yóbbu ko muy aadinaam waaw xam nga dama lay wax ne. Moussa Ibrahima Khalil ab la mu ngi fële ca Ngaabu. ndeysaan maa ngi lay maa ngi lay wax fàttali ñëwoon na Mbacke. Mm-hmm. ah ñëwoon na Jalle. wallaahi ndeysaan incha allah yal na yàlla fay. yónniwul kenn tax ba ak si ca kër ga ndeysaan. Mm-hmm. na fa nag lool. Mm-hmm. ndeysaan. waxtaan nañu waxtaan yu bëree bëri am solo. ndeysaan waaye Moussa Ibrahima Khalil nee na. bu ñu toogoon fii ci salle bi nii. rajo Pape Dieye. ak ak ak Njoon. bu ñu fayee lampe bi bu ñu neexee suñ ko. waaw gis sa sa morom. kenn. waaye ay ku jëm contact. ay bu sëñ Mbàkke jógee nag wuti contact ba nag. waaw dëgg la ñëpp lay def noonu muuraay nun la mel. dëgg la ñi baax baax da leen di. ci ko dul def. Mhm. ki koy def da koy dérange. Mhm. man mos naa ci dëkk yi def ne bu ma gisee ku muur sama xol bi day génn. waaw mën ko ëpp naa def ci bu mu kooku sax da koo wax mais ñii di wax tele bi di ko di ko bonal ak a sawte loolu la leen di dal. waaw ñoom ñi muuru. dañu wane seeni seenu seenu sàgganu ñoom ñi maanaam ñu yiw ñi dañ koy wone ah Mbàkke <laughs> da ngay déranger. ku ñuy tu mm-hmm. tuddi mm-hmm. muur la mm-hmm. ngay sëyi ñu muur la nga dugg bàmmel ñu muur la ah! soxna Faat Bintu Jóob nee na dég ci ëllëg taxaw ca kanam suñu borom boppam neen ak yaram mu neen nee na looloo koy waral muur ko bee koy waral wuur de wax na dëgg nag wallaay wax na dëgg macha allah jërëjëf Oustaz jërëjëf ci tomb boobu ak euh, muuraay gi moom itam ci fi jaar la ñu jaare ci noonu rek euh, muy lu yaato yaat loo xam ne mat naa bàyyi xel école bi itam mat naa waxal ndax itam euh, am na yoo xam ne daal jigut jigut réew mi xaw ma ci jubluwaay jigut réew mi xam nga waxoon naa la suñu yalwaan yi yàlla yàlla këpp mm-hmm. yii doo nga tax mm-hmm. waaw lu ñu yaakaar mu tas ñuy tawte tuuti rek indoon ne jeex na <laughs> xëy na ay million lañ si naar a def. ndeysaan ay milliards kii ay milliards. wallaay ci ndox mi te mu tubaarkàlla mu ngi noonu. Hmm. Hmm. léeg-léeg ñu dem coupe dafa bay final ñu du mënuñ ñibbisi. Hmm. léeg-léeg demi final ñu du mënuñ ñibbisi. ndeysaan barki démb coupe coupe du monde lañ dem di basket. amuñu victoire. juróomi sorti juróomi defet. waaw ilaa Sénégal. de. wallaay métti na. ci def si xaay bu bari préparé ko loolu ñu dugg ci. est-ce que yal na yàlla yërëm. amiin yaa balaa amiin. nan ko jox li moom. Mm. wa man aarada an zikri mm. bu ngeen ma joxul li ma moom. Mm. Hmm. fay na loo ma du ngeen dund dund ko neex. ndeysaan. loolu la wax de su ngeen ma joxul li ma moom. waxoon naa la kër ba Pape ak Cheikh di way seen way ba. Mm-hmm. muy ñaar di wax jox leen ma réew mi. baa ma wengal gàll. ma yàlla yi nee na ngeen jox ko baa ma wengal ko. macha allah am na solo jërëjëf oustaz eh, ci dimanche jiitam ñoo ngi yendu fa ca daara yi kokki bu suñu wayjur Cheikh Ahmad Saxir Lo daara amati fa ndam lool moom daal léeg-léeg la naqal ci penc mi ba ngay jooy rek naan Sénégal yàqu léeg-léeg ñu dugal la ci ruq yoo xam ne da nga naan Sénégal a fi rawati ndax nit ñu baax ñu daje yendoo dundal daara ak alxuraan yi ci aju noo koy jàngate moom it délégation bu rëy la yebal Mbàkke mhm. moom Cheikh Mokhtar mhm. mu ne bu ngeen àggee wol ko di wol ma téléphone dox ma ko. ndeysaan. wax nag mu ko nettali. ndeysaan waaw waaye daal daara amatina na ndam. dëgg la. ndam lu rëy. seen temu ren di ndam lu rëy. Mhm. doxalinu alxuraan. Mhm. ci benn ji. Mhm. ndam lu rëy. ndeysaan. këy diine yi. association yi. ñëpp boo ko fa daje. bu ñu waxtaan di mag Cheikh ma Khalil Lo ba si yàlla ko yàlla yokk wér. amiin yaa rabbal aalamiin mu ne man ndaje moom rek mooy ndaje moo xam bu ñu dajee ci liñ fi daje lépp. Mhm. dañ koy bool rek. def compte alxuraan. waaw moom kay amu fa leneen. mu ne ma kenn amu fa leneen. alxuraan moom lépp. ndeysaan waaw. mu ne ma loolu nag daa jaadu kon su wootee ku dégg ak ku déggut ku yëg ak ku yëgut ñëpp. Mhm. daje ndax bis boobu lañ fi am. muy mhm. muy bis boo xam ne bi nii la mel. mu ne ma yeneen bis yu nekk nag mënees na caa daje mënees na jël lu lekk mhm. waaye nag du tee ci geneen compte lañ ko nañ ko def ci geneen compte mhm. waaye fii moom mu ne mu ne ma genn compte gi dong isan wax na wax ju am solo waaw kon alxuraan amati na ndam amati na ndam yàgg di ko am rek ndeysaan waaye oustaz it ak discours yu daw yaram man bi sëñ Fallou Lo di wax euh, mujj na daal nga yëg lu waaw lu rëy rëy rëy nit ki da koy yëg fi mu toog buñ la faatalee cosaanal daal man kay xam naa ñaari yoon ba tey rek ngay xool man ba ñu dugg kokki rek laa am yëg-yëg ndax bu ñu lay wax ne la góor gi ñëw defum mbaar te ngay ñëw mu nekk ab dëkk nga xool la fa riime ci ay oto ak sareet ak mbooloo ki kaa ba ngay yéemu lu jiitu mbaar ma sax waaw ak garab la fa fekk wéeru ca garab ga allahu fa la faan hmm. ndax dañuy dàmm ba ci guddi gi ñu woo ko ñu woo ko mu ñëw ñu ne ko demal ko nga xam ne léegi fa ngay dem moom xam nga ni fii mooy kooki waaw tey nga am mérite bu dool ne ministre sax bu ñëwee di wax lii gën a doon fierté mooy mu wone sa mbokk Allahu akbar oustaz daal yabu booy lebal nga lebal yàlla moo am pay waaw waaw loolu man suñu tubaab waxoon waaj ba mu ne ko dama bëgg alal jurul jeex mhm. mu ne ko booleel ak yàlla mhm. loolu la ko wax booleel ak yàlla mhm. mu ne yàlla jara wooteel bàkke yàlla jara làngal moo jara booleel moom rek ndax cheikh ma cheikh euh, ahmed saxir hmm. ker ba mu ne fa cëpp nekk fa moom dong ak dong ba mu àndal hmm. doxub duri dong ba génn àdduna hmm. ñu indil ko jilli mbay ak sëñ saam kii raw ci masala kii raw ci masala maslaha <laughs> dégg daara jee kaka lakkaat dongee labaka def yëf mu ne ca rek bisub tey foo xool muy tabax mhm. wallaay foo xool muy ndox waaw ñuy tudd lu bari ñuy tudd lu bari <laughs> yéeme na de ah macha allah résidence gi ñu toogoon ñun la kii waaw benn taali bi fi doon njànge moo ko tabax allahu akbar ndeysaan ñun la kër gii hmm. résidence la benn taali bi bu fi doon njànge moo ko tabax doon yalwaan ci kër gii moo tabax kër gii ndaw ko ndaa boobu def na fu rëy as ndaw <laughs> yàlla na yàlla ko ci tëri jëfam amiin yaa rabbal waaw kara bañ njëkkee ñëw Cheikh hmm. Moxtaar daa nga sama loxo bi ne ma lii moom mu ne ah, mu ne ma dama la koy wan rek maa la koy wan sama bopp hmm. noo ànd dama ci saaw toog mu ne ma diwoo fi tabax lii yàlla na yàlla fay ko amiin Cheikh Moxtaar toirkal la hmm. yàlla na ko fa yàlla yàggal amiin gën koo sàmm te sàmmal nu ko waaw tubaarkàlla su ma ñëwee daf may déy ni ma yow de moom xam naa ne ci daara bi jógee loolu la may déy ñaari su may déy loolu la may déy loolu am na solo jërëjëf daara ji it amaan ndam ci geneen ci mooy eh, ndaje mi ngeen doon daje yow ak oustaz Iran Ndao Cheikh Fallou Guèye ak mbokk yi ngeen loon di dajaleel suñu mbokkum daara oustaz eh, Taïb Socé ndeysaan ndeysaan téeméeri million ngeen doon dajale ñu bari bi ñu ko déggee dañ ne téeméeri million gars yi fu ñu koy jële dégg naa mat na Yara Ndaw ñëw na Mbacke. Mhm. waaw ñëw na Mbacke moom moom ñu ko tudd. waaw délégation bu ñu ànd. est-ce que est-ce que. ba mu ñëwee avant muy toog. Hmm. ma déy ko ne ko félicitation. Hmm. daal di koy déel di faadal. Hmm. Mbacke. waaw téeméeri million du lu yomb de. dëgg la de. yéen waaye damaa woo léegi ak jooy. mu ne ma saas mu ne mu ne ma. maa ngi leen di ñaan bu leen yemale lii téeméeri million yi. ma ne ko nu ñuy def. mooy da nga naan da naan léegi ONG. xaw ma ko ci. waaw na nu ci làgg-làggal daal. waaw ba waxu ci. daal di mu ci yeneen wax yoo xam ne tabarkàlla kon. bañ koy tàmbali. dañ koy tàmbali. am na ñoom nit saa loolu moom xanaa ay nu tëdd la. waaye suñu mbokk Iran daf ne woon su ma tudd. waaw na ko jaay otoom yëg këram yëg yërëm yëpp. Mhm. pour mottali ko. waaw moom de moom moom gaynde la. munu fee weesu. gaynde la de. Mhm. sala bu ñu la wanee vidéo bi muy wàññee bu guddee. waaw. bu dajalee dara ba mu yóbbu këram. waaw ba di ko wàññi. waaw non da nga koy yërëm. ndeysaan te xam nga kenn du ci kii moom mooy def lépp ba mu ne cocc. day wàññi di wàññi bañ asalaatu xayma ne nawm. ndeysaan. <laughs> mu teg ko fa ndax xam nga. waaw. di di di di wari nit mbaa nga koy orange money. Mhm. yónnee ab 500. waaw mu war a yónnee lii jëli lii nangam. ab 500. ndeysaan. te 500 boobu boo ko jàddalee jàddal nga ci xaaj bi dara. dëgg la dëgg la kon doo bëgg mu jàdd. Mhm, mhm, man léegi ñu def may woo ah, lii mooy sa numéro. waaw ma ne waaw mu ne damaa bëgg a participer ci kii bi. daal la yónnee ab 500. boo demee nga ne aadama damay jël si daal di koy jox code bi mu xool ko daal di. ndeysaan yàlla yàlla fay leen. amiin waaye lu baree bari ngi ci jàngi ci yéene. waaw waaw euh, euh, nit ñi ndey ndeysaan gis ni nga xam ne moom la am. ci waaye xoolal faadal mi doon yéeg. di wàcc di jëli di ñëw di dugg. tabarkalla ah waaw ndeysaan. moom koo gis. tabarkalla yal yàlla barkeel. amiin ala kulli xaal mm-hmm. mm-hmm. mat na. sëkk. mat na sëkk. terrain ba. jot nañ ca oto bi daal moo ak seegut wala boog ak seegut ci suñuy loxo waaye borom waxoon dana ko def kon nag léegi ñun tam hmm. ah, xanaa ñu jël yëf yóbbu ci sunu avocat hmm. jël la ca tege tege ca ba waa ngi tege rek waaye mbir moom mat na léegi eh, tabarkalla bërki dem waa tëngee ñu ngi may woo naam dañoo bëgg participer ma la ah mat maa leen mat na dama leen di jox léegi numéro hmm. soxna oustaz Tayib léegi li ñëwaat ginnaaw ngeen dugal ko foofee mm-hmm. mm-hmm. waaye ñun lañ doon wut moom mat na incha allah yal yàlla euh, fay leen coono yi fay ñi nga xam ne dugal nañ ci seenu ñax ak ñi yéene woon ndeysaan ñëpp maa ngi wax ci fajar ne euh, ñaar rek ay am waaw ki man def waaye nag yow bon benn euh, amoo loo def wala am nga ko waaye d'accord ci principe bi kon téyal saw làmmiñ waaye nag defoo ba noppi nag yorati sa làmmiñ ji wër di wax ak saboté mën naa ñàkk ci ah déet am ñoo xam ne loolu rek bëgg liggéey ci àdduna te du teemu mat Mbàkke hmm? allazina yabxaluuna wa yamuru wa yamuruna naasa bil buxli da ngaa fàtte laay jooju waaw déedéet foo dugg rek mu réglé la ko dëgg la réglé na lépp bàyyiwul dara bàyyiwul yàlla nee na dafa am ñu nay mhm. kuñ seen ngay def ñu nay ci sa poos yow dëgg la dëgg la moo taxit de moo taxit de seen cheikh mu ne ndax mën ngeen firi araayita mhm. paay na ko waaw mu ne mënu leen ko ndax yéen da ngeen naan araayta lës yi hmm. ndax gisoo ki nga xam ne hmm. yu kasi bu day weddi bi dina ci bis pénc hmm. mu ne du foofu ñu ne ko lan la mu ne ko lan la mu ne araayta xanaa gisoo allës ki nga xam ne yu kasi bu day weddi bi diini ci njariñ jaamur ci njariñal jaamur ce que mu ne fazalika ku mel noonu yadul yatima jirim ba ko yaakaar doo añ allahu akbar est-ce que eh, xam naa nag da ngeen toog waxtaanaat yow ak Oustaz Iran ak mbokk yooyu ngeen xoolin nu ngeen koy man di gën di organiser ba loolu wéy ndax eh, léeg-léeg nit ñi toog yàgg daal nga xam ne dañuy da ngay tiit ndax am na ñoo xam ne sa suñu fenn te itam ci daawa bi lañ nekk te danañ soxla yu mel noonu léeg-léeg bu ko defee xam naa. Euh, waaw réew bi moom social daa bari ba bu ngeen tàmbalee léegi tey ngeen doyal ak sàkkuy ndimbal. waaye xool luñ koy nofee. daal baax na na yàlla mot moom technique dëgg koy def. waaw technique dëgg lay doon. <laughs> ndax keroog bañ tàmbalee daa am ku ma woo ma. Hmm. ngeen bañ maa fàtte mën ne ko lii loolu. <laughs> lii la ma wax ci li di laaj moom. yàlla xam na ko. ngeen bañ maa fàtte ma ne ko lii loolu. ñun li ñuy dajalee lañ ko. <laughs> nit ñi ñoo neex. bañ ca doom par kenn. te xam naa dama ko tonn sax dina waaw est-ce que kii la. fekk sa law man la. waaw la def la rek. bu ma demee ci ñoom Mansour Diop ak eh, kii ah, Ahmed Aïdara. Mhm. ñu ne dañu laaj ciment. Hmm. <laughs> Mbacke. Hmm. may ñibbi rek am ko mu sama laal ji daal. Hmm. Eh, <laughs> allahu akbar. commencé ñaan commencé maa ñaan te yow joxaguñ la. joxaguñ ma. waaye nag lañ ma digoon ma bu ñu ko joxoon. R plus 4 laay tabax. moo tax keroog ma ne Iran yàlla baax na bi suñu téléphone yi yàqoo waaye bu yàqutoon keroog la yëfee yàqu ndax Mor Xujaay woote na danaa joxe six millions mm-hmm. paate woote danaa joxe quarante ndeke duñ joxe dara mm-hmm. moo tax te moo tax téléphone yi yàqu ñu yem suñu téléphone yi rek macha allah am yàlla jàppale leen nag jàppale suñu mbokk mi nekk tubaarkàlla mm-hmm. bugaan amiin wallaay ndax lim nu defal waaw du lu ndaw de ah, ndaw de. ndaw de lebal na daara ji cër bu rëy. Bougane merci et félicitations. Mm-hmm. jërëjëf Oustaz lebal nga daara ji. Mm-hmm. waaye lebal nga ñu mën a fay. Mm-hmm. duñ la fay sax noonu. waaye li ñu yor muy alquran moo lay fay. yàlla na ko fay. te da nga ko gis nag incha allah. incha allah daañu la dog. ci saa yër defal ko ci bàccin. naa la jàngal lu muy saahu yitum bi tax yitum. <laughs> Ah, yi nee na ñaan googu il faut Oustaz jàngal ñu ko. man ak mooy joxe millions yi de. jërëjëf am na solo jërëjëf oustaz beneen ndamul lislam rek laay tëjee. jotaay bi tey moom ay ndami lislaam rek laa lay indi. ma góor muy jumaa ju mag ji ci Kolobaan. Eh, di jumaay Masaalikul Jinaan nga xamante ne ñi ngi koy waaj a ubbi àjjuma yi suba ji bu dellusee eh,